gannaaw ba waa ndawi Malicounda Ngogone taxawalee ab collecte ngir defaraat seen case de santé bi ki nga xamante ni moo di Mamadou Dia nekk responsable politique ca Malicounda ñëwoon na seet si leen. am fi suma benn représentant boo xamante ni moom lay liggéeyal mu oo fii vraiment pour waxtaan ak ñoom par problème mu dëkk bi surtout seen poste de santé bi nga xamante ne vraiment toog na diir marché wul ñu doon def benn collecte de fonds. pour poste de santé bi mun a redémarrer waat le plus rapidement possible pour daw yaram ndaxte vraiment si monde bu ñu toll nii je pense doomu aadama bu nekk euh, war nga euh, si ngay faj war na la mën a jege mais bi ñu fi ñëwee vraiment dañoo ñëw fekk poste de santé bi case de santé bi mu nekk loo xamante ne euh, lu déplorable la presque technique pendant des années doxul nous ni ma gisee dëkk bi dëkk bu mag la aujourd'hui soxla nañu faju euh, soxla na jigéen ñi fi nekk aussi suñu c'est sûr que c'est difficile pour nous génn surtout pour accès si village bi c'est vraiment compliqué Ben, entrée moo fi am te pour benn oto di ñëw sax da ngay taxaw may ko mu ñëw keneen dugg te su dee guddi la loolu vraiment euh, dafay nekk loo xamante ne lu lu métti la si dëkk bi kon jot vraiment euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor commune Malicounda ñu gëstu euh, population Malicounda gogo. ñun ñi nga xamante ne ñoo fi ñëw te aussi li dañuy def suñu partition par rapport ak si li nga xamante ne moom la ñu demandé pour euh, population pour population bi Costa a faju euh, constat boobu lañ ko def dafa jot ñun sénégalais je parle même pas de commune de Malicounda mais ñun sénégalais nous ñu xam ñi nga ont ne ñoom la ñuy fal ci suñuy gox yi ndaxte maire da nga war a jege say population di xool lu leen lu ñu leen metti nga ci jéem même ba mun sax nga jéem moo tax ñun ñi nga xamante aujourd'hui ñoo dëkk ci biir dëkk bi dëkk si biir commune Malicounda ñu jël suñuy tànk jël suñuy dool jël suñuy am-am bëgg ànd ak population yi si élection yi di ñëw ñu jëm leen fee teggi ñun ñu toog fi ànd ak jeunesse Malicounda ñu mun a diriger commune Malicounda. waaw li ñu mën a xaar si man bëri na ndaxte déjà li ma fi ñëw tey man dinaa joxe sama participation te incha allah dinaa leen accompagner woon encore si yeneen moyen peut ci si case de santé yeneen ak parce que man comme li ma wax toujours rek. Euh, population bi ñoo ma ñor euh, dinaa nekk seen wet li ma mun ma def ko mais li ma mun aussi ma mun ma ko mais ce c'est que ne incha allah dinaa dinaa leen jàppale si sama doole. incha allah bëgg nañu nekk candidat te je pense qu'on va être candidat incha moom nag ñaawlu na bu baax état bi mu fekk case de santé bi te di xamle ne dina leen ci jàppale bu baax waaye yiit kii di maire bu Malicounda moo war a jiitu ci liggéey bi lee ndawal Malicounda ngoogoon di woyal seen collecte ngir seen case de santé bi ñu mën koo defaraat ba ku ci nekk mën faa ñëw faju